mbégte lool rek d'abord gërëm leen yéen waa Thiey équipe boobu am solo bu jeune bu dynamique ci liggéey bu am solo bi ngeen def ci réew mi tey pour nit ñi xam ne xew fii ci at na ngeen il fallait que yéen ngeen nekk loolu rek doy na ci sant leen gërëm leen ñu leen di encouragé di leen félicité di leen souhaité bon vent di wax ne aussi tey la ñu am fekk mu rëy fii Saloum ñun ñu nekk ay Saloum Saloum nekk ñoo xam ne li président Macky Sall defal ko ci Sénégal muy bilan tiitar la ci ñun ndax ci ñun la bokk ci waxin ndax ku dëkk Fatick jàngee lycée waa Jojo Kaolack kenn mënu laa génne Saloum mu def ko muy fier les choses yoo xam ne mën nga wax ne depuis indépendance amul fi muy ndaw tudd après indépendance def ko fi muy secte yi waaye boo jëlee yoonam bi tey lan moo ko indi muy dafa ñëw groupe inauguré inauguré lan ay yoon dem dikk ku nekk xam nga ne bu nit ñi mënut a dem mënuñoo dikk koom-koom mënut a dund kontoom mënut a jëm kanam te loolu tumuranke woon na fii lool muy yoonu Fatick kaw la defaraat ko defaraat muc mucc ay muy yoonu dingiraay kër ay di yoon wu am solo di yoonu Kër Waly Ndiaye Basi Sokone di yoon yoo xam ne daanaka dafa lënkale dañoo lënkale Saalum mu ñëw di ko inauguré waaye dafa am luñ ci boolewul moo waxaale leen kon loolu mooy information bi fii ñu taxaw nii mooy cawan cawan du lat nange bi mu ko defal rek léegi bi ma nekkee maire la juróom benn weer laa ci teg mu defal ma ko pour un budget de huit cent cinquante millions ak fond d'entretien routier autonome le FERA presque benn milliard loolu nit ñi xamuñu ko woon dinaa ko fàttali léegi te ñu ngi taxaw fii yoon boobu commencé kon bu dul woon mu xaw a gën a yàgg yële daanaka xaw nañu ko mën a inauguré wax kon dama jàpp ne ñoom fii dañuy inauguré n'est-ce pas l'axe Diawandoor Latmingué moo tax it defe naa gis nga ko Latmingué yëpp génn pour wax ko d'abord merci Latmingué yow génn pour dalal xelam ci fi ñu jëm mooy falaat ko dès le premier tour en 2019 ci ginnaaw seen maire ginnaaw seen équipe municipale boo jàllee ci yeneen bi gerte gi ñuy wax ak yeneen ak yeneen fu muy jaar ci tale kon buñ ko béyee ci àll bi mu yaatu bari te ay yoon amul jafe-jafe dina am tey fii may wax ak yow nii bisaab rek laa ci jot à part loolu parce que yemul ci dafa ñu dale jamono lat menge non defal nañu aussi lat menge ci kat téere lat menge ci kat téere dix-sept quinze kilomètres dix-sept léegi boo jógee fii jógee Nioro nga ñàkk dugg Kaolack pour dem bi di laal ak Kaffrine ngay jàddee jaar Latmingué jël piste bi génne mu Moussa